je pense que li amna luko indi tamit parce que je pense que président def na déclaration bu bu yagoul ensuite Djoko bi mu def ak ndaw yi may rappeler loolu yep rafet na tous les citoyens sont concernés ñun ñep doomu Sénégal yep le concerné ñun ñep wara a ko président benen bi ñu faté né Djoko bobu taxul fekk nañ fi problème yo xamné ay sénégalais ñokoy régler comme ñom ku ci wax problème environnement ñun ci lañu yëngatu bu ñu waxé saxal garab ñun ci lañu dëkk di saxal garab kon nañu tenir compte les acquis li fi doomu dëkk bi ko def da daa li fi état def li fi maire yi def ak suñu alal loolu nañ koy rappeler bañ a wax comme si rek ñoom ñooy solution yi dañ parce que ni ma déggee nii tey pôle yi wax suñu jeunes yi wax muy plateau medina dafa mel ni ñoom ñoo ñuy gérer dafa mel ni ñoom ñoo pour régler problème problèmes ñu musul régler amoo ñun ñuy am début nous avons des structures qui parlent de l'environnement nous avons des acteurs de l'environnement et nous avons aujourd'hui des arbres qui ont fait presque 5 ans 10 ans qui ont grandi qui donnent des fruits donc il faut quand même parler en tenant compte des acquis que que technicien techniciens ne koy wax si le bâtiment yi boo une commission buy wax le cadre de vie bâtiment fait ici. mais rapproche-toi des institutions yi nga parce que il faut être méthodique l'État doit encadrer les jeunes pour une méthode pour une pour pratique par exemple j'ai fait un autre constat tout à l'heure Moi, tout à l'heure je suis pôle yi ñu leen wax seen seen wax mais ils doivent se retrouver autour de lui ils doivent se préparer Ils doivent se autour de tout le monde pour gérer le temps parce que le développement c'est la gestion du temps Si vous rassurer il faut être méthodique d'abord il faut qu'il arrive à parler d'une seule voix d'abord pense que à l'unisson voilà ñu am retrouver mais sa focal mënul wax après ñeneen wax les autorités ont fait rafetal ko mais écoutez man Sané xam nga je marche pas mais les mots dama né liñ fi wax yépp ñun mom lañuy ñuy dund boobu ba légui mom lañuy wax amul fi luñ fi wax lu bess ñun solution yi nak nekkoon nañ ci en tout cas walu cadre de vie mom, foog na né jappalé nañ ci maire bi du peinture du garab du maire yi tamit ñu ci def ay effort té maire yi boo conseil municipal la c'est une équipe c'est toute la Médina qui se retrouve autour donc je pense que il faut pas que tamit ñu nax nit ñi il faut que ñu xamal nit ñi né CRD bi mu deful lu nous permettre d'exposer à nouveau nos problèmes, nos doléances. Mais dans des projets, il faut toujours les acquis et les réalisations. Ah oui, parce que si on toilette publique, ou on toilette école, mais vous faites les Chinois ils ont un apport. Vous donc exclure. Donc, si vous avez un sujet, c'est une enquête. lii nag dama ko def pour jàppale suñu ndaw yi jàppale ñi déglu ñu xamné tamit ñun newuñu fi rek di nelaw po léegi nag lii dama koy wax tamit pour ñom ñu réagissons wat sen taxaway ak ni ñuy waxee ci mbir mi ma xamal leen personne n'est exclu ci le président président c'est une institution la preuve amna ñu joko jokkox peut-être que daj pour mu fallu ñooñ dajuñu ko ànduñu ko woon sax donc problème bi du lolu problème bi que nous dans nos instances aussi nous avons des jeunes qui ont le droit et l'obligation d'y participer que nous leen engagé pour réunir non nous en tout cas nous nos jeunes écolos n'ont pas été impliqués et nous l'avons nous le déplorons. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Ah oui, je le fustige. Au nom de quoi nous, les jeunes engagés, nos jeunes engagés depuis des années au service de la communauté, au service d'eux-mêmes, au service de notre pays, ñooñu duñu leen impliqué sur le mel noonu ba pare nga ne rek ñuy waxal te li ngay wax yow ñun ñoo si nekk di ko liggéey yow liggéeyoo ko wax rek nga si def ñun nga gis ñu koy def da koy wax booy wax da nga naan ah comme li ñuy waxee eh waa Dak Médina de wala waa ZP vraiment ay jàmbaar lañu parce que ay pionniers lañu si wàllu presse locale nit non lay waxé da ngay wax di gëreum ñi mais do di wax dara fi yow non je suis pas d'accord et ça moi vous me connaissez ça né moi je le déplore fermement et je demande qu'ils rectifient leur façon de de faire tant aux jeunes de de la Médina qu'aux jeunes de plateau parce que ñom ñep la déglu mais ils n'ont pas été méthodiques ils n'ont pas été pratiques ils doivent apprendre à parler d'une seule voix d'abord ngam ben mu wax ñep aussi mais qui wax après ñeneen jugaat jëral parole non moi je dis que et puis ça n'a fait que de la répétition je pense que ils ne connaissent pas mieux les problèmes que les maires. Il faut arrêter. Il faut dire la vérité. Ça, le président Macky Sall, il le sait ce que je dis. Le préfet qui est là, les gouverneurs le savent. Les maires ne Les Maires, ils le savent parce que nous ñoo gérer donc nous dañu appuyer sur les maires appuyer sur les acteurs de développement qui sont sur le terrain pour réussir la mission les politiques au contraire les politiques sont engagés ils sont dedans les politiques c'est eux les maires c'est eux les élus les politiques il y en a j'en ai vu dans les Djokola là y en a il y en a des jeunes qui sont politiques. Il c'est quoi le politique Le politique, s'il n'est pas le plus noble, qui est plus noble que lui C'est lui qui travaille pour soi, sa cité, pour sa communauté. Moi, je n'accepterai pas qu'on pense que l'autre est plus noble que le politique. Je suis plus, moi, politique, je suis plus noble que les apolitiques. Je suis plus intègre que les apolitiques, plus patriote que les, apolitiques. Oui, nous sommes les priorités. Nous, nous devons être les interlocuteurs number one de l'État.